jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax di ànd ak yéen ci 30 minutes chrono di nuyu ñëpp di leen ziar ñu dellusiwaat comme ni ñuy tàmm di ko defee saa sune ne dellusiwaat ñëw ci actualité bi Omar Bun Xataab gi nekk ci kàddu gi El Hadji Modou Diouf Abdou Toob ak Ablaye Diallo nekk ci régie bi ñu ngi leen nuyu bu baax di nuyu ñuy seetaan yëpp. di leen wax euh, ñi aimé di commenter di partager ci solution info TV tey ñu fas yéene ñëw ci ay sujet ñun fas yéene waxtaane yoo xam ne dominé na actualité bi dina ñëw ci Amadou Ba tey wax ci Amadou Ba mi nit ñi naan dafa yaru dafa lii dafa lee ak ñi muy àndal ak ñi muy àndal laay daf mel na xaw naa weng fii de jubantu ko tuuti gën a nekk ci <laughs> axe bi quoi ah ak ñi muy àndal loolu dinañ ci wax loolu tax ma tuddee ko Amadou Ba ak ñi muy àndal maanaam fas cassée bu Amadou Ba parce que man dama ci am beneen gis-gis ci ki ñuy présenté dinañ wax ci Sonko ak Casamance kàddu yi mu ci yëkkati jëme ci ñenn ñi bëgg xam taal bi te mu dànkaafu leen tëkku leen. wax la leen cay fekk ku mel ne seex Yérim génn di tontu Sonko dinañ wax aussi tamit euh, ci makeek lettre am bi ak Sonko ak mille milliards yi ak tontu bi ci Macky amal bu ci leneen xajee aussi tamit ñu dugal ko ci ci trente minutes lu tax tey ma indi ku mel ne Madiambal Diagne indi ku mel ne seex Yérim Seck ñoom ñaar waxi Casamance ñoo ñi ko gën a ci réew mi di fàttali ni Casamance gi Sonko ne du nu nangu ku ko politiquer ay monsieur Casamance ñoo xam ne ay malet ak dundee direct waa Casamance moo tax ñi xamb taal bi ñoom du leen may fu ñu yekkee seen nàkk ginnaaw ab livre boo xam ne dana kat de ab tubaab ko bind di ci wax ci autonomie ak indépendance bu Casamance.

waru ci nekk journaliste mais sénégalais la ci war a doon mooy li jëm ci karangeeg réew mi li jëm ci mbiri Casamance li dem ci souveraineté réew mi loolu du lu ñuy politiquer loolu mooy loo xam ne ñun ñëpp dañ ci war a déggoo amul ay caaxaan amul li ñuy laam-laamee du sax loo xam ne dañ ko war a teg ci place publique bi loolu tax boo xoolee li jëm ci wàllu communication armée li ci ëpp DIRPA ñooy génn wax ñu doyloo loolu mais du nit sax mooy tëb di ci wax ni lii moo xew lee moo xew léegi ñu gis un Cheikh Yérim sekk génn jël coow loolu bëgg ko yëkkati ku mel ne Madiambal laa même chose fu mu toog ci plateau rek day mel ne day xamu taal bi te mbiri général Kandé euh, quotidien ka ko jiite woon convoqué woon nañ ko ci ci ni mu ca bindee woon boole Ousmane Sonko ci mbir yi ci affectation bu mu waroon dem New Delhi ci dem naag demul ni ko ma jambal waxee loolu du débat bi parce que mbir yi général Kandé ñun duñ ci sori te duñ ci wax ma jàmbal am na lu mu ci xam mais ñun aussi am na lu ñu ci nettali mais loolu amul solo li ñu ci nettali dëgg-dëgg du mbiri sax Casamance waaw général kànde du ñàkk ni xam na ña ko jëlee ca place xam na Macky xam na keneen xam na keneen xam na. mais Madiambal à chaque fois day jël général Kandé bu ko lié ak Casamance alors que général Kandé bi muy dem Casamance ñëpp xam na ni Casamance sedd na mais duñ ci sori jàmbal aussi Cheikh Yérim aussi la même chose dafa wax benn wax ci mbiri Casamance lu tax mu ne livre bi waroon dugg Sénégal librairie quatre-vingts waroon ko li moom moo tax nguur gi yëg ko Cheikh Yérim waxul dëgg lu tax waxul dëgg. lu mel noonu bii am ci réew mi Cheikh Yérim mooy kan ba mun ko gën a xam nguur gi nguur gi yor renseignement nguur gi yor armée nguur gi yor police yor gendarmerie yor lépp di contrôler lépp yow nga doon ab benn Cheikh Yérim sekk proximité bi nga amoon sax ak nguuru Macky Sall ak nguur yi fi jaar sax amoo ko ak nguur gi kon nguur gi mënoo am information yu dul am parce que ñooxu bi nga daan ñooxu yeneen nguur yi ñuuxuwoo leen ko mu ne moom moo génn wax ci moo tax nguur gi yëg ko ne livre bi du dugg noonoo nguur gi moo njëkk a yëg information bi tere ko ci xibaar yi ma dégg avant Cheikh Yérim di wax nguur gi tere nañu loolu kon Cheikh Yérim lu mu wax du dëgg mais comme ko génn na wax il faut que mu génn wax moom Cheikh Yérim Seck moo fi waxoon ne mbirum Casamance moom du ci journaliste mais sénégalais la maanaam. li jëm ci jàmmi réew mi ak kaaraangeeg réew mi loolu sénégalais la ci te lool te Cheikh Yérim boobu lañ bëgg ñun maanaam mu doon sénégalais boo xam ne Sénégal da koy gënal boppam gënal ko ay intérêt am gënal ko ku mu mën a doon gënal ko France parce que pour man Cheikh Yérim ak France dafa mel ne séq nañ dara parce que mbiri femme boobu muy wax bindkat bi même bu dee nee na moo ko njëkk yëg kan moo ko ko yëgal kon ak lan la séq ak France ban koy jox xibaar yu toll noonu lu tax Cheikh Yérim jël xeexam ginnaaw boobu day day créer mouvement politique boo xam ne dafa jóge ci avion wàcc ci saret parce que koo xam ne danga doon wax naan dangay ngay togg ak Alpha Condé di togg ak Gbagbo nekk Jeune Afrique boo demee ba mën a wàcc mën a toog ak ñenn ñi maanaam da démb fukk nga doon jar mais tey juróom ngay jar mooy wane ni Cheikh Yérim wàcc na bu baax a baax léegi noonu mu waxee ci livre boobu. jël coow li bëgg ko xam ba Sonko moo yey dànkaafu leen parce que nee na léegi mouvement politique la yor léegi dafa fas yéene xeex te xeex bi jaral na ko lu ne digganteem ak Sonko xam ne boo nee xeex jaral na ma lu ne pour sa intérêt kase kon dafa war ci ñi jiite réew mi ñu taxaw na la lu mu jaral Cheikh Yérim pour nga yàq réew mi man Sonko jaral na ma ko loolu tax tontu Sonko bi neex ma. waaw parce que nag Cheikh Yérim dénkuñu ko réew mi dénkuñu ko réew mi Sonko ak Diomaye leen dénk réew mi kon ñoom bu képp ku ñëw di ko yàq wër na mën a yow jàkkaarloo ak yow Cheikh Yérim li mu ne mu ngi doog a am ci senegal ab nit di bind livre ci Casamance ñu koy dax pour mu génn réew mi ci biir ay waxam Cheikh Yérim foofu tam waxaatul dëgg parce que en 2010 am na un journaliste français bu bindoon ci Casamance ci jamonoy Lay Wade livre boobu ba tey duggul Sénégal di nga lii gouvernement bu Sénégal wax loolu la Abdoulaye Wade waxoon ci français yi ñëwoon di bind livre pour déstabiliser Sénégal beneen bi ci topp Cheikh Yérim nee na ba léegi ci jamonoy Abdoulaye Wade gis nañ fi Babacar Justin Ndiaye ci ndaje mi Wade doon séq ak taskatu xibaar yi mu wax fa Casamance Wade dafa dal ci kawam publiquement na ko daa am yoo xam ne du ci maslaa kenn wax ju tar ju tar jëm ci Justin Ndiaye wax jooju sax moo gën a dis lu Sonko wax beneen bi yéen a ngi fàttaliku mbiri Sophie Malibo ab correspondante RFI la woon doon liggéey ci mbiri Casamance dem di interviewer Salou Sadio je ne sais plus ci Bruce bi ak ci Macky bi mais dañ ko génne Sénégal Sophie Malibo yéen ngi fàttali loolu kon Cheikh Yérim li mu naan lii mi ngi doog a am waxul dëgg man Cheikh Yérim ëpp ma ko information daaxuma ko jàng ëpp ma ko xam-xam man loolu laa gëm mais honnêtul parce que bu nee lii mi ngi doog a am te li may wax nii yépp moom mu xam ko soit dafa honnêtul wala il commence à perdre la commence à perdre la tête parce que aussi ñàkk nguur dafa xaw a metti ñàkk say privilège dafa xaw a ñàkk du ñëpp ko attan parce que pour nga ñàkk mun ko muñ li naan am gore ñàkk gore il faut nga am iman bu dëgër pour moom la pour xam ne àddina y a des hauts et mais taxawaay bi mu taxaw dafa laajoon Sonko jug wax mais Sonko tuddul ma jàmbal tuddul la Cheikh Yirim lu tax Cheikh Yirim génn tontu ko. mu ne moom kenn du ko napp ragalul kaso boobu la ragal kaso koo dégg mu naan ragalul rek ragal na baatu ragal ku koy tudd rek def nga ko lu tax Sonko tuddul benn tur mu mu génn ba ana xar mi rek mu bàyyi buum bi loolu war nañ poser question pourquoi moom yowoo ci ay nalaw rek tontu kon mooy wane ni li Sonko wax dugg na ci boppam nee na boo demee ci internet bi lu ëpp ñaar téeméer ci ay nit. ñi ngi doon wax li muy wax moom pour pourquoi ñaar téeméeri nit yooyu tontuwuñu seex Cheikh Yérim di tontu lu tax ñaar téeméeri nit yooyu tontu wuñu ma jàmbal di tontu loolu sénégalais war nañ poser question la nga waxoon ni pour jàpp Sonko bu dee jaree quatre vingt pour cent des sénégalais ñu rey leen jar na ñu jàpp Sonko yow la nga waxoon mais ñun dañ naan la bu jaree Cheikh Yérim yow ñu jàpp la nan la jàpp. kenn du ci dee nag pour jë ñu bañ a xam taalu Casamance bi kon na la jàpp parce que daa am yoo xam ne ci réew kenn du ko fooye parce que français yi tax ngay wax ñoo ñu ëpp problème foofu ni ko ko waxee la Nouvelle-Calédonie mi ngi ne bëgg na seen indépendance di fépp seen diggante ak France France bàyyi ko fa ñëw di wax ci Sénégal gis nañ fi Corse Corse bi mooy ñan moo ñu dëkkee côté Bastia ak Ajaccio ci France ñooñ danoo ñàkk juboo ba bu ñu amee match de football sax dañuy xeex ci ñoo xam ne ba tey ñi ngi ut seen indépendance ci France parce que boo nee Corse am na ñu ko xamul mooy côté Ajaccio ak ñu nekkee côté Bastia ñooñu ay fippukat lan ay at a ngi nii même bu ñëwee ci championnat Ligue 1 bu football match yëpp tension lay doon te fii ñun am nañ jàmm ndax mu ñu gis ni waa ka dégg waa Casa Sport ñi ngi xeex ak waa Jaraaf wala ñi ngi xeex ak waa Pikine mooy wane ni ñun amuñu problème mais dafa am ñoo xam ne ça veut dire que dañoo bëgg ñun ñu am problème te loolu ni ci ko waxee avec fermeté ñun loolu daf ci ci lan ànd parce que am na question yoo xam ne kenn du ko teg ci place publique bi le secrets militaires les question militaires ak souveraineté ak indépendance ak yooyu yooyu du yu ñuy négocier li Golbert Diagne doon wax naan dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi moo ko gën waaye dëkk ci dëkk bi bëgg dëkk bi moo gën mais nekk ci dëkk bi di liggéeyal meneen réew pour sa propre intérêt doon ay mercenaire u France loolu Sonko ak Diomaye waruñu ko seetaan léegi nag lu tax sànq ma jël Cheikh ma jàmbal lié leen un Amadou Ba Amadou Ba dangay ngay dégg ñu ni la dafa yaru Amadou Ba jàmm ak njariñ pour man Amadou Ba c'est un homme sournois maanaam day mat di ëf ci suuf la ne mais man pour man bokk ñi ci ñi gën a dangereux ci classe politique bu Sénégal dinaa leen wax lu tax wan ma sey waay moo wax la ki nga doon bu ne Amadou Ba ñu ne Madiambal mii di xamb Casamance Amadou Ba lay àndal mi ngi ci listam pour que Amadou Ba mën a ànd ak ku mel ne Madiambal loolu duñ poser question maanaam Amadou Ba mun na toog fële ut ñu koy liggéeyal pour di ko defal sale boulot yi comme munu ko te amul fit bi léegi day ut ñu koy defal maanaam Amadou Ba ni mu jegee ma Madiambal ba mu mën ko boole ci liste loolu war na poser question qu'est-ce qui passe Amadou Ba ak Lat Diop kan mooy Lat Diop duñ ci dellu siwaat mooy ki gën a hostile maanaam ñi gën a bañ Sonko ci réew mi Amadou Ba lan àndal ñi ànd ak Macky Sall mën nga leen waxal lu ne mais am na question yoo xam duñ ci dugg c'est le Casamance ay duñ ci dugg am yoo xam bu laajee politique dinañ politique bu laajee politique dinañ politique mais am na foo xam ne ñoom sens interdit la ci ñoom yu bari dañ ko jeer jàll mais ñaan nag Amadou Ba xoolal ma jàmbal Cheikh Yérim li ma tudd ci Casamance ak yëpp ak ni ñuy doxalee ci réew mi mais ñoo ñëpp ay nitu Amadou Ba lan Cheikh Yérim moo fi toog na Amadou Ba sama xarit la may wéet ak moom damay séq ak moom est-ce que waxuma de mais est-ce que li ñuy def ñoom ak di kaw est-ce que santu leen ko Amadou Ba ñu ni la jamono yi ñi ko gën a jege bokk na ci Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté mooy kan Moustapha Diakhaté boo doon tànn ci ñoo xam ne tey boo leen tegaloon sonk mun na am ñu jël paaka Moustapha jaxate bokk na ci ci côté waxin doxin maanaam te pour man am na ñu ne yàgg naa nekk loxo ndeyjoor bu Amadou Ba mais da ko doon nëbb nga jël Thierno Alassane Sall am na ñu ne ku jege Amadou Ba la tudd nañ ko ci mbiri Karim Wade lu tax Karim nekkul candidat ci role bi mu ci am na ñu doon ji naan Amadou Ba moo ko ngemb ñu gis ni Thierno Alassane bi muy jiite Aar Sénégal di dem élection am na ñu ne coalition Aar Sénégal loxo Amadou Ba génn ci woon en deux mille vingt deux boobu Amadou Ba mi ngi nekk Macky mais am na ñu ne dafa bakkar feggu ab coalition. duñ ko wéral nag duñ ko dëggal mais avec les faits ak jamono xam ne des fois mën nga di xalaat dara wala nga koy wax mais ñu dem ba benn jamono jamono dëggal ko ñu gis ni aar Sénégal ni mu tëddee woon am na ñu ne sax ki doon dox ci diggante bi nekk intermédiaire bi Moustapha Diakhaté la woon njañ Diakhaté léegi kooku la ñu bëgg a présenté comme nit ku yaru un homme d'état un homme ceci nit ku am yërmande nit ku li ni ni nii Amadou Ba bi mu nekkee premier ministre ci la mbiri Ousmane Sonko gën a tar ci mbiri Adji ci leen gis ñu toj oto Ousmane Sonko en tant que premier ministre ci leen gis ñu bari barricade ko ci leen gis te am na ñu ne amoon na ay rapport ak Moussa Fall général ci leen gis mbir mi gën a tar ci Ousmane Sonko alors que mars 2021 ba bi Amadou Ba di nekk premier ministre maanaam Sonko naam justice mi ngoon ci kawam mais ñi ngi ko doon traité à part yenn doxal yi ñoom Antoine jom ak yooyu mais gis nañ ne nguur gi egguloon woon fenn fi maanaam tëj ko ci këram 55 jours jël Casamance barricade ko maanaam Casamance saxaar dawul roplaan naawul oto demul. ñu jël Casamance berlin maanaam yooyu yëpp da koy méngale li naan fekkee moo waral ay gaaf da koy méngale ak bi Amadou Ba nekkee premier ministre loolu il faut que ñu def ci jàngat xool nit kooku mooy kan parce que yor na alal yor na ay milliards mais ñan ñoo ko wër maanaam pour nga xam la personnalité de amadu Ba la ba doon wax bu làng ak ñoom bu nangu doon ndaare mais la personnalité de Amadou Ba il ñu jàngat ko ci niveau boobu parce que da ngay dégg gars yi ñu bëgg koo jox benn dayo ak benn image boo xam ne te ñi ko wër ñëpp heure bul ñu xëy li xam ak li taal réew mi léegi nag ñan la mën a ànd ak ma jàmbal ànd ak Moustapha Diakhaté ànd ak Cheikh Yérim ànd ak keneen ak keneen Cheikh Omar Anne keneen ak keneen léegi. ñu bëgg présenter waa jooju comme nitu jàmm mais il faut se poser des question kooku mooy kan ak lan moo tax le président Macky Sall tànn Amadou Ba comme candidat dem ba jamono mu jël ko sànni ko ñàkk ko wóolu dem ba mu jaral ko mu dugal na d'amnistie pour génnee Sonko ak Diomaye ah pour génnee Sonko ak Diomaye ñu jàkkaarloog Amadou Ba pour que alors que Macky Sall. am na nu mu doon poussé Amadou Ba mën na nekk président lu tax Macky wóoluwu ko ñu jigee ci élection présidentielle jëm législative Macky jaar nii Amadou Ba jaar ne Macky kenn du ko bëggul wax waxi Amadou Ba dem na ba yónn ay ojo di ko gaaruwaale moom ak ay nitam te Macky moo ñu gën a xam Amadou Ba te Sonko bi mu génnee kaso toog na mu ne Amadou Ba moo gën a dangereux Macky sàll te sonk moo ñu ko gën a xam ndax liggéey na ak moom léegi nañ jàngat personnage boobu bi ñu bëgg a comme benn nit ki alors que man du kooku pour man dafa nekk ci suuf di matt di ëf kooku ku jara bàyyi xel la ci élection yi jëm parce que dafa mel ne jikkoy utkat la yor utkat amul jikko waaye bu tee ñu xam jikkoom man nit ñi ñi ngi naan Macky mais man Amadou Ba laa gën a ragal ko Macky Sall parce que Macky Sall loo ko mën a waxal ci àddina Macky Sall ni mu mel la lay wan Macky Sall du tricher Macky bu la bañee da lay wan ni dama laa bañ bu la bëggul da lay wan dama laa bëgg bii xeex du laqatu ci ginnaaw ay nit di xeex day xeex xeexu boppam seetlu ko ma nga Maroc waaye bi mu. génne réew mi ba tey ji li mu bëgg a def yëpp mu ngi koy def bloqué assemblée dem élection législative fas yéene xeex ak Jomaay ak Sonko bind lettre wax ci li mu bëgg xam na kooku dina neex a jàkkaarloo man dama ne noon bi bi ma gënal mooy ki ma ki ma xam xam naa ni kii sama noonu la kooku naa xam nan laa koy gérer na laa koy maytoo na la mais ku mel na Amadou Ba doo xam nga maytoo léegi nag lu tax tey jii le président de la république maki Sall bëgg a ñëwaat bëgg ñu présenter maki bu beex tax te xamul ni dëkk bu yàgg te naqadi gunge bu sori du ko defar te doo dund ak moom 12 ans. le président de la république Macky Sall def fi lu ne wax fi lu ne xëy tey jii bëgg a nepp ak yonent boo xam ne yàllaa ko yebal ginnaaw juróom-ñetti weer ba sonk ak Jomaay nekkee ci bopp réew mi Macky di wax ci sonk ak Jomaay mel na ki wax ki wax ak boppam nee na justice bi liwul alors que moom ni justice nërmeeloo ci nguuram mosu ko nërmeeloo ci àddina li dee ci nguuram ci affaire politique bu dee am na tamit gëj naa dee ci réew mi 84 morts 1000 personnes des ci kaso bi mooy président de la république boo xam ne moo fi njëkk a reporté élection présidentielle ci moom lañ gisee élection législative ñu dagg liste titulaire bàyyi ay suppléant jàll moom lañ gis ci président boo xam ne ay détails lay gérer c'est un détaillant du occupé wu sur les grandes lignes détail rek lay taxaw moom lañ gis bi muy génn réew mu mel ku daw gedd sànni réew mi gedd réew mi dem yoonam moom lañ gis ci président bu dem ba jeexal war a fégal na day yokk mandat am ba ñeente nit faatu kooku mooy le président de la république Macky tey nag bu demee ba ñëw bëgg dellusiwaat ci réew mi war nañ poser question Macky Sall kan la yàpp yàpp ba ne day dellusiwaat réew mi ñu def gouvernement d'union nationale mu tegaat réew mi ci yoon parce que nee na réew mi mu fi bàyyi woon réew mi ñi yàq nañ ko ci juróom-ñetti weer kooku mooy le président de la république Macky léegi nee na day dem législative ñu bari ñu ngi naan Macky Sall bëggul nekk député mais man gëm naa ne Macky Sall mi est-ce que bu nekkoon député sax du dem siège assemblée nationale wala muy ut immunité parce que Macky Sall ñàkk dayoom ak manquéem egg na ci xam na Ablaye Wade nekk na fi député mais daf bàyyi suppléant am jàll parce que li naan ku war ñay wàcc ko lu yëg mu tuuti mais Macky Sall sañ naa dem assemblée di dàggal santeeg député yi egg na ko parce que ku mën a dàgg santeeg mbay peex wala ngay dàggal santeeg say militants. wala ngay dugg ci mbiri fait divers kooku mën na la xaar nga dugg assemblée di tàccoonteeg député yi ci ancien président de la république loolu mën nañ ko xaar ci moom léegi nag li tax Macky Sall génn tontu mooy Macky Sall day campagne te nag tëlewul politique comme mënul dellu ci réew mënul lii ci réew mi mais Macky Sall mi ngi dem élection fii di 10 jours dinañ dem élection mais li mu fi jot a def ci réew mi nee na mais moom lay jël teg ko bilan boo xoolee bilan Macky Sall day campagne ñu bari ñu ngi naan Macky mais Macky day campagne parce que ginnaaw ba ko waxee ci dem loi si wax ci mille milliards mais Macky il faut que mu génn campagne il faut que mu génn campagne te loolu lu normal la politiquement mais il faut que mu génnee lettre pour ñu wax ci moom pour ñu wane ni candidat la ba léegi. parce que Sonko bi muy wax dafa choisir camp xëcc Amadou Ba def ko benn challenger am mais day zappé Macky Sall ci biir waxam à chaque fois alors que Macky bu sañoon Sonko di ko tudd directement parce que loolu day baax ci moom parce que sonk li koy wër ci mbooloo bu la tuddee ci kanamu mbooloo mais mi ngi lay defal publicité. kon Macky a besoin de ça mais zappé gi ko Sonko di zappé loolu la Macky mënta muñ parce que Macky mooy koo xam ne mënta doyloo dara maanaam Macky xol bee xat maanaam Macky mënta doyloo dara moom yoonam nekku ci maanaam boo nekk ko xadd ga lay na sax mu déconné loolu c'est la personnalité de Macky Sall dafa am ñoo xam ne ñu xajoo dara Macky Sall xale bi ndaw bi ci mbedd mi sax bu dajoo nag moom xale bi bu ko njoosee sax Macky Sall fayu parce que ab lay jóge na ci réew mi Abdou Diouf jóge fi mais seen comportement bokkul ak bu président de la république Macky Sall léegi nag doye di gën ñuy gis ci Macky Sall ak yabaate gi gis ci Macky Sall pour man moo yàgg nekk ci Macky Sall mais un président de la république da lay couver de tele sorte que da ngay nekk benn genre mythe mais tey bi fi garde corps yi nekkatul conseiller nekkatul fi ñi la jege di la jaay nekkatul fi léegi Macky ngay gis gisatoo président bi loolu tax jikkoom moo feeñ li muy def ni di maire bind di lii jikkoom moo feeñ. mais dafa war a xam ne dëkkinu naqadi wala ngan gu naqadi gunge bu sori du ko defar fi mu jaar ak ñun la te mënuñoo fàtte parce que li mu bind ci lettre bi yépp moom la maanaam moom la réew mu yàqu réew mu naxas réew mu lii réew mu lii noom la loolu tax bu ma gisee yenn journaliste yi taxaw naan non un journaliste ni la war a def wala chroniqueur man dama jàpp ni ils n'ont rien compris tey jii man invité naa fi Assane Diouf toog publiquement ñu wax man leen bokkuma Pastef am na ñu ma woo après non ma waroon wax la man leen non bokkuma Pastef <laughs> te loolu dew ma seen réunion yor ma seen carte takkuma seen bracelet demlante mu demlante wu ma ak ñoom sequñu teranga kon lu ma boole ci ñoom amul mais daa am lu ñu gëm ñun boo déggee ñi wax nag ñu bari foog ni danoo far ak Pastef wala doonu lii Sénégal dafa dund 64 ans ñu fekk suñuy ndey ak suñu baay xool Senghor Abdou Diouf ak Laye Wade fi ñu bàyyi réew mi naam am na lu ñu fi def ci lu baax mais ñun bëgg nañ beneen Sénégal boo xam ne fii 2050 moo gën liñ fi dund depuis 60 ay nit ñëw tegal ñu ne dañuy def rupture def anti système ñoonte dëgg. def rupture def antisystème proposé ñu leneen mais ñun balaa ñu leen di wax ni li ngeen ñu proposé baaxul du leen bàyyi ñu exercer pouvoir mais da leen di bàyyi gunge leen moo tax même ñun bu ñu bëggul Pastef gëm nañu projet bii ñii di doxal ñun dañ koy assumer te jàpp naa ni dañ ci war a jàpp pour mu dox parce que bu dee ni. danoo xeex 2021 ba 2024 nguur gi jeex ñu teg fi Diomaye ak ko six mois après ñu bëgg leen a sànni mais kañ la Sénégal di baax Macky Sall pour ñu mën ko juger daf fi nekk 12 ans Abdoulaye Wade daf fi 12 ans socialiste yi daf fi 40 ans ñeen ñi en 8 mois boo leen xas ci lan nga leen di xase boo leen di weddi ci lan nga leen di weddee boo leen bañ ci lan nga leen di bañee. mais du leen bàyyi ñu exercer seen pouvoir toxal ma naar naar naar yaa ngi fekk deux mille vingt neuf parce que Abdoulaye Wade de deux mille à deux mais bàyyi leen góor gu mu liggéey lan doon wax mbooloo mi ko doon topp xam la loolu la ñoom Ousmane Tanor Dieng doon Abdoulaye Wade ay jinnee ko topp ñoo ko doon woteel parce que sénégalais yi dañ cee jàpp pour mu mën a réussir lu mu réussir Macky Sall ba 2016 bi muy changé constitution bi. sénégalais yi dañ ci doon jàpp gisoo ku ko opposé frontalement ci réew mi 2016 lañ commencé gis njublang ñoom Sidy Lamine Diouf ci bi ñuy réviser constitution bi di ko changé ñeneen ñeneen ñeneen jug xam ne kii fu mu ñu jëmee du foofu parce que daf ñu woon 5 ans bëgg ñu yóbbu ci 7 ans ñu bari njort ni dafa bëgg a def troisième mandat di soppi constitution bi ñëw dugg ci yu kenn xamul moo tax sénégalais yi taxaw na ko abbaana gasi a faga du la bàyyi nga déroulé mais fii ku fi mës a réew mi dal laa jàppale nekk ci sa ginnaaw ba nga wan ñu leneen ñii dañ wanagul lu tax ñu war leen a weddi en huit mois ci ñoo xam ne condition yi falo maa ngi tëj Ablaye condition yi falo amuñu assemblée amuñu majorité soxla majorité assemblée nationale jël benn projet teg ko ñu ne chaque cinq ans dinañ évalue évaluer le projet est war ñu leen gunge ba deux mille vingt-neuf léegi nag ku mu nekk ci ñun mun nga def sa choix mais nan respecte ce choix am na ñu ne ànduñu ci projet bi gëmuñu jomaay gëmuñu Sonko la majorité de la presse noonu lay gisee am na ñu gisee neneen nan respecte loolu mais du caagan ni ñii danoo far Pastef ñii danoo far fee mais am na ñoo xam ne danoo far réew mi danoo far réew mi te nag fekk gaay yi ñi ngi nekk ci jub jubal jubbanti dañuy ànd ak ñoom di leen gunge bu ñu gisee nag doxin wi jeng ñu leen yoon wi ngeen di jaar baaxul teggi leen mais il faut ñu gunge leen encourager leen pour pousse leen ba lu suñ borom bëgg kon di jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp di gërëm baax Abdoulaye Diallo Abdou Top ak El moo du Diouf ci régie bi Omar Bun Khattab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi kon incha allah beneen alxamis euh, ñu dellusiwaat bu 19h jotee seen euh, émission euh, trente minutes chrono ci solution info TV jërë ngeen jëf.